li xew moom Grand Médine lay jógee comme kenn trouvé wu ko acca na ñëpp wuyu xaama bàyyi sëñ Ngundu waay ma ne loo xëy happy birthday wuri ma ba nding ka nga nding urubata babin samadin happy birthday waaw waaw happy birthday to you Mame Moussé Alboury demal te ñëw bàyyi buuna Alboury demal te ñëw waaw waaw Alboury Njaay maa jigéen Njaay ba Jolof maa naan buuna yaa ba numteen Alboury demal te ñëw yaayu buuna alburee demal te ñëw waaw waaw njaay ma jigéen buuna njaay ba jolof ma renaan buuna yaa bënum teen alburee demal te ñëw awu leen baayu buuna alburee demal yow buuna njaay ma jigéen buuna njaay ba jolof ma renaan buuna yaa bënum ay waay Ibrahima Seen woo la waaw man de la yàlla na ngay maame ay waay Ibrahima neexu leenam waaye Alburi neexu leenam ne ko biram njéeme ay sa njaay ay waayi biram njéeme ay sa njaay alburi biram njéeme ay sa njaay ne leen biram njéeme ay njaay yow maa jigéen yaa bëgg albure waaw waaw alburi ñëw na naaye marumba Ibrahima Sène woo naa la Ibrahima Sène duma tay di la joobe Ibrahima Xalilulaay Ibrahima neexu leenam ay waay Ibrahima neexu leenam ay waay Ibrahima neexu leenam man de bëgg naa la joyeux anniversaire ay waay Biram ay sa waay biram jéeme ay sa njaay alburi biram jéeme ay sa njaay aw leen biram jéeme ay sa njaay jolof jolof baa ngi nii ay waay góoru maa jigéen la ndeysaan biram jéeme ay sa njaay alburi tey ma woola ay waay biram jéy mee ay sa njaay man bëgg naa la mbokkum yaayum bay pël du di la joobe jitu nga leen karawaas gi mbër gàlle yaay su guddee fanaane waaw biram jéy mee njaay biram jéema ay sa njaay jolof jolof jigéen tey ma waa yàlla yow maa jigéen tey ma waa yàlla tey ma waa yàlla tey ma waa yàlla tey ma waa yàlla tey ma waa yàlla waaw waaw